mané suis nañu ñëw fii son bureau voilà muy fi ci Tëngéej voilà donc euh, man may Ibrahima Gueye donc di le Bargny alors euh, politique intéressante, mais may kat waaye fa ma commencé nag mooy spécialiste de la recherche documentaire là parce que je suis diplômé de l'école des bibliothécaires archiviste et documentaliste de l'université de Dakar gannaaw loolu aussi ma def émigration ñëwaat encore aussi def concours aussi nekkat professeur d'éducation éducation musicale nekk fonctionnaire de catégorie A alors euh, bokk ci ñi nga xam ne donc nguur gi alors euh, mu ngi leen di njukkal weer mu ne ngir seen liggéey alors gannaaw loolu eh, dëkk yi ma dem Espagne ci la bokk Belgique Belgique ci la bokk France ci la bokk nekkoon tamit Italie alors di wax wolof di wax français di wax anglais di wax italien. voilà am tamit ñaari doom ya nga xam ne eh, ñaari doom yu jigéen la sama ñaari pédanaar yooyu ma leen di nuyu kenn ki ma dippee ak eh, Mame Diarra Bousso yaay ku tedd ki yaay Sëñ Touba keneen ki tamit tudd ma astuwaale bi ci naawel loolu daal xam naa mooy ci gàttal li nga xam ne mën naa ko wax ci présentation waaw tey ñuy fas loo xam ne sujet d'actualité ñu waxtaanee yi moom la ñëpp di waxtaanee mooy Ousmane Sonko. Mhm. ñu lay laaj yow tey jii lan xalaat si moom. waaw eh, soxna Adja eh, Ousmane Sonko li ma koy jëkk wax mooy dama koy yërëm parce que li tax ma yërëm ko mooy eh, dëgg la xale la bokk ma si ñi nga xam ne dañuy wax ne Ousmane Sonko warul yor réew parce que xale la gis nga Adja fan benn borom xam-xam bu mag bu doon wax ne la valeur n'attend point le nombre te mooy dëgg gis nga Emmanuel Macron bi ne France ba muy ne président France 39 ans la amoon il est né en 77 te ku si nekk xam na ne c'est Kim Jong-un bi né Corée du Nord xale bu ndaw la donc du yooyu non et il est un présent très fort donc du at mais Ousmane Sonko il manque bigrement de maturité manam ci wolof Ousmane Sonko nag dafa dese ak dal dal bi nga xamné mom lañuy la ñuy ci ka nga xamné kilifa nga yor nga jikkoy kilifa Ousmane Sonko amul ak dal militant yi ko topp it yoruñu ak dal parce que man Adja man gëwuma nit ka nga xamné dañ lay mengalé ak yonante bi parce que dégg nga sax ñu ne ay Seydina Ousmane Sonko militant yi man lañ ko wute noonu lañ koy woowee man gëw ma lool gis nga ñun ñëpp Adja ay nit rek lañu ya nga xam ne man ngaa yeewu eh, balaa midi nga juum balaa tàkkusaan nga juum mais nag li ma metti mooy militants yi dañ ko xamul noonu et ñoom dañu andi benn débat ba nga xam ne eh, en tout cas mënul jëm kanam mooy débat wu nit parce que dafa am euh, yenn kàddu yu ñu wax ne Eleanor eh, Roosevelt moo ko waxoon maanaam jabaru euh, Roosevelt président Roosevelt le 32e président des États-Unis il y a une carte nga wax ne moo mais boo sax si biir euh, boo defee ay recherche lay Henry Thomas Buckle qui est un historien britannique dañu les grands hommes discutent des idées alors eh, madame, les les grands esprits les esprits moyens discutent des événements les petits esprits discutent des gens Alors, Henry Thomas Buckle wax mais dans noonu lañ ko nag euh, dëkkalee ci Eleanor Roosevelt donc euh, jabaru Franklin Roosevelt do nañ wax ne mom moko ko parce que xëy na moom moo siw mais muy wax ju am solo moy gis nga ci rew duñu waxtane ay nit parce que ñun ñëpp ñoo euh ku ci nekk parce que aduma mo wër ko ñoo yem tant que dog jotul ju mu mënta wess ñun ay nit kese bo yéwo bu bala takku sa man ngaa juum bon nag eh, débat wu nit dañ ko tek na la fii kenn jëgé ofisi si bi nul né sorti de la cuisse de ñun ñëpp ay nit kese lañu mëna a légui nak nag militant Ousmane Sonko li tax seen mbir graw moy dañu nekk ci culture de la personnalité manam dañuy jaamu Ousmane Sonko parti la ba nga xamné daayira la bo waxe Ousmane Sonko dara man nañu dé légui wala ñu daanu crise légui motax de manière systématique dans les réseaux bo waxe ci Ousmane Sonko nit gën légui saga wala nit gën légui def vidéo saga la tuddal lu ñaaw xass la té bu nga mané ray sax lolé mu ngi ñoo mel la ray motax sa d'ailleurs ma ngi fatal na ci république lañ né euh, j'appelle la justice et les forces de défense et de sécurité di défendre sénégalais yi nga xamné dañu am seen kàddu am sen xalat fi ci réew mi parce que li di ram ci bi la jëm militant yoy nonu xamna né ne tôt ou tard bu ñu leen bàyyee bu ñu leen arrêté wu nit dina fi wax eh, soxlam ci Ousmane Sonko ñu ray la wala ñu teg sa kër wala dara nak euh aja Señor bi dafa tombé ak euh, ñu kay tuumaal Jupiter Ousmane Sonko dafa yegg ci kawam te ko parce que lool moy viol mm-hmm. wax né aussi dafa don menacer de mort man nak en tant que intellectuel eh, luma wax amna wala amul lolu intéressé wu parce que ndax amna wala amul xam nga kan moo ko wax fi mu ne nii du ko bokk fi du ko bokk fa moy justice moko ko wax xalé bi yobou nañ ko section de recherche deglu nañ ko patron yobou nañ ko section de recherche deglu nañ ko Ousmane Sonko bo xolé médias yi nenañ nañ suba lay wuy ci xam nga la lay xaar man su fekkee ne parce que nenañ mo euh xalé bu jigéen bi yobou nañ ci ben laboratoire jël nañ ay prélèvement parce que nee nañu euh, am na ku yegg si kawam nee nañu ah, fekk nañu ndoxu góor si kawam léegi nag kan la xamuñu ko légui nak bu eh, justice dafay liggéeyam ba nga xamné en tout cas eh, médecins yi nga xamné ñoo lolu seen spécialité la prélèvement yi ñu jël bu mengo weex ADN Ousmane Sonko ah bu boba aussi justice rek eh, wax nan la mbir mi demee mais man japp naa ne un député deug la da nga am permis de circuler en plein couvre-feu da nga am mais du pour quand même dem ñuy raay sa yaram parce que tamit gis nga Adja massage dafa bari ay euh, façon par am un massage ba nga xamné dañ ko tuddee massage actif ak massage ba nga xamné dañ ko tuddee massage passif gis nga ni koy déggee moy kinésithérapie ak un simple massage de beauté wala un massage tonifiant du benn don député nak génné dem ñu massé ji la moo doon député génne wuti ji caga mooyam parce que du sa liggéey dem ñu massé la loolu bokul ak say fonctions de député

voilà donc le contraire aussi est valable Moi, Ousmane Sonko Vous faites vous faites dëgg la à partir d'aujourd'hui vous bu war jël sa jabar centre de massage bu demee faire vous mu massage bi nag wax dëgg mais des massages, dara pas la ñu lay parce que massage man ngay ñëw ba seg amna possibilité dem massage mais mosuma fa dem ci média lay parce que xamna la toog ñuy raay sa yaram ak tëdd ñuy raay sa yaram mooy parce que dégg naa ñu ne non ndaw si ndaw si nga xam ne moom sant massage bi nee ne saa yu ñëwee doo lay def mais doo moo gën a garaaw Adja xam nga moo tax a garaaw loo def doo te sa mbubb mi doo si kaw ni mais boo simul su doo nga baal ma si li ma lay wax nii mais fii nii eh, dafa am ay zones yi nga xam ne bon buñ ko laalee nii man ngaa tàggoo sa soro boo fekkee ne permettre nga ma Adja sa cuusi buñ ko laalee man mhm. nga tàggoo sa sago boo tàggee si sogo après lu ne mën na la fa fekk man nag fa nga xam ne lu ne mën na fa fekk du ma fa dem mais may wax ne Ousmane Sonko bu fekkee ne li ñu vraiment ma xam ne àdduna tas na ba pare gis nga Adja eh, je lance un appel solennel à Ousmane Sonko bi nga xam ne man sant yàlla fekkewul lu ma fekkewul Ousmane Sonko est né en 2000 euh, en 1974 Ousmane Sonko est né en 1974 Adja moi je suis né en ma ma Ousmane Sonko benn at Ousmane Sonko fekkewul lu ma fekkul te gis nga sëñ Pape Malick danoon wax ne sëñ Babacar Sy mos na dugg ci benn oto benn waaye bu xeebu ne nañ ko yóbbaale ñu ne kenn du ko yóbbaale parce que oto bi fees si biir sëñ Babacar Sy ci ñu def caaxaan waaye ñu def dëgg bi ñu nee ba biir dégg naa oto bi dugg ci ndox ma nga xam ne dégg naa maa ngi boo ko fa génne sëñ Babacar ne ewaay eh yàlla moo mën a nit mais li nga si jàng mooy nit kenn du ko xeeb réew mii kenn def attention te gis nga dégguma ay diplôme yu ñu waxal ñu tedd ni sëñ Touba nee nañ kenn raw ko waaye ENA école adduna yi jaaru si donc nag nañ def attention xam-xam nag eh, garab sa kaw lay fekkante si biir kër lañ koy wute kenn du ko wute ci école ñii fi raw ci biir kër yi lañu ñu yëree li tax ñu yaroo ñu raw fi donc nag muy lu am solo bon ñun ñëpp nañ def ndànk mais j'appelle je lance un appel solennel à Ousmane dama ne la président Mamadou Seck bu Mbao bi nekkoon président assemblée nationale Eh, ba pare aussi ba muy démissionné nekkoon ministre de l'économie et des finances su Wade c'est que néegi maaw dama ne sama limu boobu bii nga xamee ne dañ ko tuumaal te lañ ko doon tuumaale depuis 88 la woon ñu fal ministre 2001 ñu tuumaal ko si biir mu ñàkk fay ay aide alimentaire xam nga sekk sekk c'est maaw ba mu def démissionné eh, ba pare mettre à la disposition de la justice pour eh, setal deru kii nga xam ne moo def ministre muy le président Ablaye Wade mais dama ne Ousmane Sonko aussi par rapport au Sénégal de manière générale et en particulier par rapport à xale yi ko topp te xamuñu daal yi nga xam vraiment dañu am yaakaar ci moom maa ngi lancé un appel solennel Ousmane Sonko bu fekkee vraiment homme d'état ce qu'il doit faire waru xaar sax ñuy dem assemblée nationale des procédures pour lever immunité bi na doon gor Ousmane Sonko na doon gor nit bu ñu la tuumaalee ci digg dëkk da ngay def la Youssou defoon Oustaz Aliou Sall wax na ko ci taal bi nee na Youssou bañ ko tuumaalee da ñi war wax nañ wax. képp ka nga xam ne am nga seede ba nga xam ne da koy chargé wala ngay déchargé ko na nga wax après ku jigéen ka ne ah moom day ay la yëwén comme mbir mi toll na fii moom day moroom sàpp yu su waaye yu su bu baax na yu su def ko daal donc ñun loolu la ñuy xaar Ousmane Sonko bu mu xaar procédure assemblée nationale bu fekkee homme d'état la maa ngi koy wax de manière sérieuse ci xam-xam Ousmane Sonko man ngi lay wax man Ibrahima Gueye na nga démissionné de l' assemblée nationale et tu te la disposition de la justice ñu mën la yóbbu déglu la déglu kii la tuumaal ñu xool ndax dëgg la wala parce que aspire à être président de la république de ce pays on est en république et la présidence de la république est une chose très sérieuse C'est une haute sphère de l'État. état du ay caaxaan ñun dañu doyal si ay mandat bi ñu jiite Ousmane Sonko bon maa ngi koy ñaan moom te bu ko defulee man day am naa déception Ousmane Sonko bu démissionné wu ba pare mettre à la disposition de la justice man je dirais que je suis déçu te vraiment loolu du ma ko baal ba ilaa parce que ñun ay Sénégalais la ñu te mën naa doon président de la République te ñun suñu réew mi dañu soxla ay personnes de valeur ay hommes de valeur ñi nga xam ne am nañu retenue am réserve voilà. waaw comme ni ñu ko di vraiment wax na comme un sénégalais yaakaar naa ni sénégalais yëpp di xalaat instant yi nii mooy li mu wax nii mooy que voilà ñoom ñëpp xam naa jàpp nañ ne comme que Ousmane Sonko dafa am lu muy yóotu ci dëkk bi muy di nekk président kon nag peut-être que li ko war tey jii mooy voilà se mettre vraiment au service de la justice. am naa immunité bi ñuy lever ko comme ni nga ko waxee nii daal. seen kàddu la moom nag représentant wu Sénégalais li muy wax nii mooy mooy ngi représenté bépp Sénégalais bu fi nekk ak li ah, may xam nga yaa ma fekk et ah. yaa ma fekk may seetaan euh, faramaarem bi mariage bi may sa bigé. parce que ragal perte day day wàññi wërsëg. alors ñii di wax ne et puis docteur Babacar Diop. dama dégg mu génne ne xaw ma Ousmane Sonko nguur moo koy fexeel. moi wax ko ne moom c'est un professeur d'université et ça ça n'a rien à voir avec la rigueur un professeur d'université booy wax li ngay wax dafa war a ak rigueur la rigueur intellectuelle xam nga mooy lan mooy nga wax la nga xamné xam-xam la mais bo né ngour da koy fexeel loolu kay mooy affaire bi amna bo né ngour da koy fexeel moy affaire bi amna vraiment je l'appelle à la rigueur donc vraiment et eh, daal intellectuel daal nañu xoolaat seen bopp son Adja yaa ma fekk may seetaan Maria si Messi bi Messi bi Gueye Maar ñëpp ñi nga xamné dañuy wax né Eh, dañoo bëgg a fexeel Ousmane Sonko nguur moo koy tendre piège ak ay noonam ak nangam xam nga la a Adja faramaare bi nee eh, dama ko bëgg a way sax eh, man bañ ma ku may sedd ci gaalu xaaj waaye waaye bilaay du ma ci lekk jago oro fof lay jëfe so na ja waaw et di ko assumé nag voilà may wax ne kontaan naa trop si seen ñëw fii voilà donc di jégalu waa réew mi yëpp bu ma la nga xam ne du noonu ñu ne nit rek yor mo ben kayit fii nii li mo wax sama bopp la nekk donc suma juumee ñu xam ne aussi nit rek laa maa ngi jaajëfal Sénégalais yi di fal wa Tëngéej di fal wa Bargny di leen jaajëfal Adja yow mi nga xam ne journaliste bu mag nga ak sa rakk yi nga tamit ne ay journaliste yu xarañ ngeen voilà donc di jaajëfal ñëpp voilà du ñuy ñëpp